am lu leen metti te chaque jour bis bu yàlla sàkk ñu ngi koy jootu te gisuñu kenn ku leen ko fajal waaye dama xam ni maanaam euh, Adji Sarr ñu ngi ko gis wala ci euh, boppam maanaam mi ngi wane ni maanaam daal moom wala benn benn benn benn mannequin la wala benn star la boo xam ne nii yi fi jaar yépp nekkul ci bopp bi maanaam loolu dafay wane ni kii moom benn jaayil la boo xam ne ni dara nekkul ci bopp bi ndox mi bopp bi am koppe ci nekk voilà sénégalais yi ñoo koy wax bopp bi am koppe ci nekk c'est parce que lan la mooy xoolal Sénégal fi mu jaar fépp tey jii ba agsi fii ban naan dañuy administrer voilà ñi nga xam ni maanaam tey jii jot nañ fee jaarale li fi yàquog yëpp te moom kenn warula ko lu dul moom jëmm ji tey jii Sénégal fu mu agsi rek fu mu agsi tey jii te tension ak ku ci dee ak képp koo xam ne dafa damm wala ku mën a doon rek Adji Sarr mi mooy ki nga xam ne moo nekk ci jobbaxtal la moom moo nekk ci bopp bi ba pare loolu xalaatu ko de xalaatu nan lay jégguloo nan la fexe ba mën a génn ci waaye ma ngay wut ay modèle ma ngay teg ay garafaas ma ngay xeesal ma ngay kii damaa yaakaar ne xamul dara liy xew ëllëg parce que bu ko delluwaat tuub ndax xam naa ne sénégalais yi mere nañ ko mere goo xam ne waxuma dara waaye ñaan yi nga xam ne suñ sénégalais yi dañ ko koy ñaanal voilà loolu nga xam ne mën na koo topp loolu la ñuy wax naan euh, yàlla bu la cat topp ci bàmmeel am na façon ñaan yoo xam bu ñu la ko ñaanal waxuma la cat waaye lu raw cat sax dana la topp ci bàmmeel parce que dafa am loo xam ne ni bu amee yow ci sa bopp waroo tranquille xam nga réew mi dafa am euh, nuñ ko xamee woon waaye benn jigéen boo xam ne ni ñëw na wax loo xam ne tey ba fii may wax yow nii loolu dara amu ci nga xam ne avant ñuy xam ne loolu dara amu ci bari nañ ci ñoo xam ne seeni bakkan ñàkk nañ ko ci aywa ñooñu dañoo perte nii loolu lañ wax de ñoom perte nañ perte nañ fii ci àdduna mais ëllëg dana ëpp ñëpp aw demin parce que ñoom daanaka mën naa ne la tax ñu de kaka waral mi ngi nii voilà mu ngi nii parce que loolu sénégalais yi ñoom ñoo koy wax ñoom ñoo naan est-ce que kii nit la voilà ku ko gis danaan est-ce que kii nit la dafa am yoo xam ne bu amee euh, yaakaar naa ne yow war ngaa amaat beneen xalaat war ngaa amaat beneen taxawaay war ngaa rëcc bu baax a baax a baax ba nit ñi xam ne yow mi kat am na yoo xam sax ku la ci bëgg dugal yow sax waroo ko nangu waaye nag loolu nit ku nite moo koy xam xam nga nit nit ñi dañoo egg foo xam ni wala ñu ci ëpp wala ñu ci mel ni moom mi dañuy egg foo xam ne ay carcasse képp lañ xam nga nit dana dem ba toll foo xam ne carcasse rek lay doon maanaam lu dul li muy lekk li muy solu loolu rek moo nekk ci jëmm ji mais leneen li ci des yëpp sero la amatu ko maanaam du xel mi du du du éducation bi maanaam du bëgg-bëgg yi du xalaat yi parce que nit day dem ba toll foofu noonu voilà ndax nit da nga dem ba yow carcasse rek mooy des ci yow amatoo xalaatukaay amatoo tiitukaay amatoo dara voilà da ngay jàpp ne yow li nga nekk rek mooy ba max sa monde li nga nekk rek mooy dëgg te xamoo ni maanaam yow ci sa jëm bopp def nga fi erreur boo xam ne boo ko xamoon da nga wëlbatiku tuub voilà tuubal sénégalais yëpp ak ñi ci jot a loroog ñëpp waxuma dara waaye ñooñu nga xam ne tey ji seen i parents seen i parents ngi fi ak seen i yaay seeni doom ñu dem noonu ñu ñàkk ko nga xam ne ñenn ñi na naan ah ñooñu perte nañ ndax ñoo demoon ci manifestation ba yee ci aju am na ñoo xam ne nii demuñu ci woon manifestation bi dañoo génnoon nii doo nga dox seeni soxla ah, ndogal fekk leen ci ñu dee te demuñu ci woon manifestation ñooñu foo leen foo leen di classé moo tax dafa am ñoo xam ne nii danoo yàpp réew mi ay nit lan yoo xam ne wallahi lancim xool ak kër sax juruñu leen koy dénk ba leen di dénk am réew parce que dafa am loo xam ne vraiment dafa metti te nit ñu bari dañ koy méttitlu seeni kàddu joteewul am nañ chance pour wax ñenn ñi di ñu déglu voilà message yooyu nag dañ koy jàllale ndax ay nit yoo xam ne seen xalaat foofu la toll moo tax nag faaw ñu jàllale la ko gis nga àdduna suñ borom indiw fa kenn ngir mu boyal ko muy def lu ko neex loolu bu ci nekkee ba faatu moom xam na ni ah la ko cay fekk xam na ko baax a baax a baax a baax. voilà àdduna dañ ñu fee indi ngir ñuy xelto di xalaat di xool lan lañ war a indi pour réew mi avancé ci mais xoolal tey ji quatre ans yëpp Sénégal dafa nërmeelu ci lépp kenn waxu fi waxu kuy développé kenn waxu fi waxu kuy créer kenn waxu fi waxu xam-xam boo xam talaatoo yeeg yëpp ci politique la ñuy xëy guddi ak bëccëg voilà maanaam du dara du loo xam ne mooy avancer Sénégal ci la ñuy nekk di ci waxtaan de déedéet luy delloo ginnaw Sénégal rek ci la ñuy nekk di ci waxtaan plateau yi yu ci bari sax parce que liy avancer Sénégal mooy tey am na ci ay ndaw ñoo xam ne ni liggéey rek la ñuy def seen réew rek a leen ñor te tey jii yor nañ xam-xam boo xam ne ni buñ leen jàppale woon jox leen ay moyens Sénégal jóge fii mu nekk tey mais nag xëy na ñooñu bis dina ñëw ñooy téye Sénégal ci seen loxo ndax bis dina ñëw ñu jiital leen ndax boroomi xam-xam boroomu xam-xam kenn mënu koo bàyyi ci ginnaaw di jiital ñoo xam ne xaala wala kasiran xamuñu ko te loolu dafa bari ci réew mi jiital ñoo xam ne dara xamuñu ko parce que amul lenn lu ñuy apporter Sénégal voilà lu di fii ñu nekk rek voilà ndax xam nga ne kii tey jii wax dëgg yàlla bari na ñoo xam ne ñu ngi mettit lu bu baax a baax a baax a baax nii ñu koy gisee daal te moom jàpp na ne dara xewut te wallaay sénégalais yi xam nañ ne am na lu xew. bu nee bay wax ni maanaam dañoo war a baal li fi ja dañoo war a baal baalante daal maanaam li fi jaaroon yëpp dañ ko war a fàtte mais loolu dafa yomb am na sénégalais yoo xam ne loolu bu ameet dana metti ci seen xol du leen neex ndax tey jii ku ci sa rakk bokkoon wala sa yaay wala sa papa wala ku mën a doon ngeen baal ma mais du ngeen bëgg mu demee noonu faaw lépp di leer te loolu ñi ñi du naafiq ñëpp dañ koy wax ngeen baal ma nit ñi dañuy bëgg lu leer. voilà li fi jotoon am nga xam ni bu ëllëgee ku mel ne Adji Sarr wala ñeneen duñ jóg di taxaw di def loo xam ni dana yóbbu réew mi fii mu ko yóbbu tey parce que dañuy xam ne am na leçon maanaam tey jii kii bi mu defee lii lii fekk na ko ci bu ëllëgee keneen du jógee di tuumaal keneen mais lii buñ ko defee nii bu ëllëgee aywa voilà day doon continuer rek keneen day ñëwaat bu ëllëgee après def lu ko neex ca ñu ne ayoo nañ baal mais sa loolu yomb na mais baal ci àdduna moom mën naa nekk gars yi mën nañoo def seen i pexe pexe ban def baal ak yi ci ajo yëpp xam nga fu mu mës a am rek waaye nag bu leen fàtte ne maanaam bisu penc ci am na lépp lu ci amoon ak fu mu jaaroon lu mu mën a doon ki ci deewoon ak ki ci dammoon ak lu mën a doon danañ taxaw ci kanam suñu borom kenn ku ci nekk waxal la nga xam ne te leen lu ci nekk boo waxut sey say cër dinañ wax cër bu ci nekk lam defoon voilà complot bee ki ko complot woon ak ci groupe WhatsApp fu mu mën a doon fu mu mën a doon rek bu boobaa làmmañ wi dina wax te doo ci mën dara cër bu war a wax dina wax voilà soo waxul cër bu ci nekk dina wax lam defoon voilà ka bindoo nag ak ka signé woon ak ka waxoon ak loolu yëpp mën naa maanaam lëndëm ci àdduna mais fële moom léppay leer bala ñoo dem suñu këru dëggee suñu këru àjjana ya léppay leer kon yaakaar naa ne lii nekk na loo xam suufe la